beneen bi mooy lan aqaamu salaat sëriñ bi baal ma rek nga téyel ma nii ci barke samaam ndax waruma la koo waruma la koo sant waaw kañ wala nga jox ndax moo taxawee nii dina ko gën a jekk waaw kañ yàlla nangul na ma nañ lay liggéeyloo rek waaye bu leen di liggéeyloo jàpp ci alxaaji maa ko waaw góor gi julli gu ñu nangu fu mu am mu ne ah man de xaw ma ko man Cheikh Alxaaji Malick waaye am naa yaakaar julli gii moom balaa borom di kàbbar yàlla nan na koo nangul julleem toujours rek ci sàmm Cheikh El Hadj Abdoulaye nu mu daan jàppe ndax moom moom moom bis bi moo daan nu mu daan jàppe nga jël sa ndox raxas sa loxo nga ni nii bismillah allahumma inni nawaytu an atawaddaa rafa alxadasi al asgar allahumma ainni an dikrika wa shukrika wa xusni ibadatika allahumma arixni raihata aljannati wala tarixni raihata annaari allahumma bayid wajhi yowma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun allahumma actini kitaabi bi yamini wa xaasibni xisaaban yasiran allahumma la tuctini kitaabi bi shimali wala min warai dahri allahumma zallilni taxta zilli arshika yowma la zilla illa zilluk allahumma jacalni min alladina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanahu allahumma thabbit qadami ala sirati yawma tazilu laqdama allahumma jaal dambi mahfuran wa saayi mashkuran wa tijarati lan tabura mam moo doon ni yàlla ni évaluer leen ma gaaw évaluer leen ma validé ñu ne ko déet évaluer nañ ko mais validé ko ñu ne lu tax du ma ko validé man yàlla ndax sopp naa alhaaji mouhamadou lamine ñeng ni mu ko defee neex na ma ñu ne ko waaye dafa am ku des dafa am ku des malaaka yi di déglu xaaji Mouhamad jël loxoom def ci ndox mi def nii def nii loolu ñi jàpp ñëpp defatuñ ko pourtant sunna la de waaw gis nga wa samaa'i wa taariqi tawaariqu layl yooyu moo koy jël moo koy moo koy capté ashaatun talaat min min ahdalin nasami moo tax ñun bu ñu yemee ci téere yi nii rek ci bind mi dañuy daanu te boo ko dee def rek loolu la ashhadu an la ilaha illa allah boo demee ci muqaddima noonu la la ko jàngale sa bët yi nga yëkkati ko ila samaay waxul ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah allahumma ij'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirina waj'alni min ibadika as-salihina lu tax nga koy wax lu tax suuf moo ni woon asamaan maa la gën asamaan ni ko lu tax loo ma gëne mu ni ko sayyidul wujudi dox sama kaw am na dëgg asamaan dem ci kilifaam mooy yàlla mu boole mu ne ko yàlla suuf nee na moo ma gën ma laaj ko lum ma gëne mu ni ma yonent bee dox ci kawam yàlla ni ko may arbitre bi te damaa maandu danaa leen atte rajab ji passé ñaar fukk juróom benn jëm juróom ñaar yàlla invité rasulullahi ci bisam weeram ci soxru rajab rajabul fard mu jëm yéeg kaw asamaan keroog bi mu ne takk tànkam ci asamaan dafa jaayu moom asamaan ba kontaan dandi suuf naka mu mu nekk ni mu ne ko wan wan wan wan kon moo tax ñu ne bañ ko joxee julli mu ñëw ci xadra bi kelam ni yar ci fi mu war a gàggante ko ndax yàlla daf ñu woon yonent bi salaay salaam man sopp naa la bëgg naa la mais nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi bima awxayna ilayka dootuma fi ne di la gàgganti ndax doo gàg sax yow yow doo gàg mais alxaaji abdul aziz mii ñëw jamono te nekk nit kese war a roy ci yow bëgg a jël jikko yooya yéen saay mu gàg ci waxin kon dama bëgg moom it mu xam ni gàgganti ko la war a def salaay salaam bi mu ñëwee ci pays bi teg tànkam xel mi ni yar ci dàll yi mu ni xadra bi tapis rouge bii ñu ma lalal ci biir tapis rouge bi sellul daal sama dàll yi di ci ndax bu ñu la teral ngay baadoo la xoolal ñun suñu dàll yi mbaa kenn solo fi dàll bal leen ma bal leen ma de bal leen ma de bal leen ma bal leen ma xaar sax ma ndax orma dafa am solo salaay salaam xelam ne ci dëgg rek mu ni Moussa ca tuuru Sina yàlla def ne ko yaa Moussa mu ne ko labbayk mu ne ko innaka bil waadil muqaddasi tuwa mu summi dàll yi moo tax maam Abdul Aziz ne walam yamur mawlaahu xalqa niaalihi xelam nekk ci bëgg a summi dàllam yàlla ne ko est kay yow yonent bi sa dàll yi du dàlli Muusa yi hmm. yow doo Muusa afi rusli hmm. man bil hashimi yu shabbahu laa laa yàlla ni ko dus dëggal rijlayka sa tànk yu tedd yi ala basatina ci suñ tapis rouge mu daal di dëgg daal dem waaw kon loolu day wane ni goo gaggee am foo gàggante ko hmm. moom ndeke kim doon gàggante ko ormata waaye bu ko neexoon dem te kenn du ko yedd yàlla indi fa bu mel noonu pour loolu mu ni comme nag ba muy dëkk ca xadara ba li ko yàlla teeroo mooy atahiyaatu lillahi azakiyaatu lillahi te balaa ngay julli jàpp ñu ni boo waxee baat yooyu jublu mam moo doon ni kii day kabbaragul waaye am naa yaakaar ci ndax lu tax da doon jàpp alwudu u nuurun da doon ñaan adduaa u nuurun xoolal da doon def santaane yàlla santaane yàlla nuurun moo tax ñu bëgg soo jàppee balaa ngay dem di julli ji seytaane dafa gaaw waxal yàlla balaa mu lay daan allahumma jaal fi qalbi nuuran wa fi lisaani nuuran wa fi samai nuuran wa fi ba mu jeex allahumma atini nuuran kon yàlla mu ngi jàngale ci àdduna loo gis rek gis nga seen alhaji Assane Diouf mii méthode boobu la am bu booy déglu xam-xamam bu commencé do loo yàkkanti woon da toog nga déglu ci yaram dalam pédagogie pédagogie bi mu yore di ko lancé